pour Sénégal senegal yëpp dafa am loo xam ne dinaa ko wax fii mu metti ma te te na ma ci kilifa yi ñu seetaan ak ñëpp baal. Mhm. bu ñu ko mënee buñ ma mënee baal. Sénégalais yi nga xam ni dañ ñuy seetaan di dajeek ñun ci mbedd yi. Mhm. Mm. di dajeek ñun fu ne. vraiment ñu ngi lay féliciter jàmm bàyyi leen loolu baal leen ma rek ngeen baal ma mm. soose mm. on a félicité Pape Alé ba mu dugg kaso. yéen ñi ko daan félicité ñëpp ana ngeen. Hmm. wallaay wax nga dëgg. non. dëgg la. ni ma jàkkaarloo caméra baax na. ay kilifa ñoo ñuy seetaan. Hmm. Hmm. ay sénégalais ñoo ñuy seetaan. tàccu ngeen Pape Alé tàcc nañu Pape Alé ba ñu teeka am naa droit ne d'accorduma ci process. ak Baye Alé. ci ben moment ça veut pas dire ne pas le soutenir mhm. bo day soutenir nit dang ka soutenir si deug nañu doon togué di ray suñu bop mhm. fi vingt quatre heures sur vingt quatre di wax ci bàyyaale mhm. bokko ñeneen yeneen sénégalais yu baax ñep ne ca principe la te bu dul bàyyaale di kenen ak kenen ak kenen vu la façon de procéder de ce régime. Mmh. tant que sénégalais yaa ngi toog ne amul problème ku ci nekk sa bopp ngay lijjanti te mbooloo nag boo leen bëggee moom. Mhm. da nga leen di féewale du ñu déggoo ku nekk boppam lay lijjanti moo tax esclavage amoon ba ñu tasee tas sunu royaume bi tas suñu buur jaxase ñu. pa asan dem japp ngaala ngaala japp mamisam mamisam japp soosi soosi japp oustaz ñuy jappante tubaab ñew nañ ñom ñep ci ñuy jappante dugal ci saaku dem yoonam moo tax Sénégal ñoom dañoo war a gis nga maa ngay wax humblement sans prétention a muus boo fekkee da ngaa siq ay nit yoo xam dañ doon a naan fal leen nu parce que politique Senegal, ñi ko def bu ñu soxla soxla dañuy ñëw sa buntu kër dañuy sukk jooy de

yàlla na nit nag. <laughs> mu jël studio yi. <laughs> boo ko nee yaa moom caméra mu jël studio yi boo ko nee yaa moom studio bi mu jël bâtiment boo ko nee yaa moom bâtiment mu jël koñ bi boo ko nee yaa moom koñ bi mu mu wuti. mu autoroute lay jëli jëli corniche jëli fa nit da nga kaa wax sëñ bi sa limite fii la. loolu mooy adab mais mënuñu Sénégal mu su ne Sénégal dafa am baat ñu war a bàyyi borom réew mi jëkkut yàllaa moom réew mi. Mhm. gardien de la constitution mooy lan. celui qui, qui, sécurise la Constitution. La Constitution est sécurisée par le peuple, ah, pas par une personne. Le gardien de la Constitution s'appelle le peuple du eh, Sénégal. ah wax dëgg yàlla. su nous avons ñun suñu ay notion dañu nous faussé ba pare bëgg kon ñu dëkkee nii yaa ngay wax dëkk yi nga xam dañu am problème ndox Sénégal dëkk yi gëna a ñom lañuy la ñuy voté loo. Mm-hmm. ñuy voté nguur bi leen di mm-hmm. la sen ay jang kat yo ne dañuy dëkk da ngay gis ku dëkk ca tosano ca village nek fi yor carte APR élection jot mu ne non village boobu c'est à moi hmm. te ta buñu paré du ñu lijjanti problème donc aujourd'hui le cas Pape Alé tu as demandé une hmm. solution hmm. du solution pour Pape Alé c'est la solution pour tous les Sénégalais bis buñu jappé journaliste yépp né bu kenn waxati. Eh. xam Sénégal moy benn sénégalais doto wax moy kenn dotul wax moy dictature moy am dictateur yoy nga xamni dañu melni Congo ay Denis Sassou Nguesso jël sen dëkk yi di jël ressource loolu mooy tumuranke jël li nga mom yow jox ko nasaran di faagaagal sa askan sa njabot nan len ba. ba kenn wax fi. lolu ala alkande. <laughs> ba kenn wax loolu tumuranke la. jël alal yóbbu Suisse Suisse yi signé loo la ne boo faatoo kat alal ñun ñoo ko moom nga ne waaw. yow yaay. xañ ko sa njaboot xañ ko sa sa wàll. yow yaay yow yaay nit ka bon. nit ka yées ay africain ka def. la solution pour Pape Alé c'est la solution. pour Mami Sam pour Oustas pour Socé pour tous les Sénégalais. Sénégal nag yéen a ngi toog di xool. nanu tu as une famille tu te bats pour ce peuple là si le peuple ne répond pas mais tu laisses tomber c'est tout combattre pour un peuple qui reste là à dire et puis li a dañ lay <laughs> bien même sur la façon de faire, à un certain moment, on peut être d'accord ou pas, mais le principe, on s'accorde dessus. doit sortir. Tout à fait. Et c'est le peuple qui doit le faire sortir. Cher Omar Diagne, à toutes ces personnes-là, Otman Diagne, Papito Kara, Amidia, Job Taïf, à Kenen, à Kenen. Est-ce qu'aujourd'hui, la démocratie sénégalaise, bien sûr, nous avons Benoît Sambou, à Kilifou Yep, petit président, sous le président, nous casia. Mais 2010, 2011, ils étaient dans les réseaux sociaux. Wow, Aujourd'hui, on parle des réseaux sociaux comme si les réseaux sociaux mouraient dans Sénégal. C'est faux. Facebook, 2004, a commencé. 2008 2012 sénégalais a été ci réseau population bee yokku TikTok Nio, affaire yi -hmm. mais regardez les postes de 2011 de nos autorités voilà ils tiraient sur Ablaouad. kenn def leen li ñoo def nii gis nga mbooloo mu ndaw su yabee mbooloo mu mag ca mbooloo bu mag bala mhm. waaye Cheikh Cheikh sama waa ji jërëjëf jërëjëf Cheikh li nga ci wax nii de xam naa ne ngaa la mu fi wax de est-ce que mën nañ cee teg dara kenn mënu cee cee teg dara kenn waaw waaw waaw kenn mënu